asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 15 avril 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi sunu làmb nag tey fële nuy xëy commencé ko yëgle kaay ba nag tey Bombardier la ñu andil Bombardier boo xam ne daal fi mu nekk nii mu nga ràngoo ay ceenam mattu fas kanam ga bomb nag la mu xam ne daal diggante ba Gris Bordeaux lay wax fi mu nekk nii doom mu ngi taxaw di ko xaar xaar bu wér boo xam ne daal bés buñ ca yeggee Bombardier ne na bu keroogee ni dina mel ni njarndéem ndax nag lu méttee méttee métti la bëgg a defanteeg moom ndax moom ku ko dóor day fayu te nee na daal fi mu nekk nii fayu dong la gis ñu ne ko léegi kon lu des Bombardier ne ki des daal kenn la mooy Pape Thialis Faye daal nekk nii moom moo ci des te man fi mu nekk nii bu dee sama diggante ak moom la wax nañu ba tënk suñu ay kàddu kon daal daa mel ni combat Gris ak Bombardier moom deseetul ci côté boobu wala boog ci côté Bombardier bomba xëy tey di ko wax sunu làmb keneen koo xam ne nii moom daa am koo xam ne daa xëy di wax ak moom di ko tegaat place mooy ama neex moo Moodu Anta lay waxal nee na na bàyyi di ma dox di tuumaal ak a sosal bëgg bëre ak man wala bëgg ñu bëre warul tax mu may waxal ay wax yoo xam ne nii amul ama neex tey moo xëy di wax loolu moom bu ñu bëggee bëri seen combat taxaw na muy ki nga xam ne nii moom moo di xoyantaan ak Baye Mandione sunu làmb lanu ko fekk waaye dañ fay jóge dem fii nga xam ne nii moom moo di Leewtoo TV Leewtoo TV nag dafa ñëw ci làmb ja nga xam ne moo amoon samedi fële nga xam moo doon ca Iba Mar Diop te Assane Ndiaye jaaroon fa làmb ja neexoon na ba yegg ci lool coow la bare ba yegg ci lool ndax nag mbër yi nga xam ne ñoom la Assane tëgg yëngu nañ fa yëngal fa rawatina fëgala ak double moteur mu mel ni kii daal kere moom Iba Mar Diop na lool lool lool waaye la am solo day mooy grand combat ba diggante ambulance ak kii nga xam ne nii moo doon wulli de bëre combat bu metti te yàgg waaye jël ba nga xam ne nii moom la ambulance da wala boo jël ba nga xam ne moom la wulli de daan ambulance ba tey jii moom la ñuy waxtaane ñu fekk ko ci Leewtoo TV muy jël bu rëy boo xam ne nii day foo ko takk rek weesu na ko xar la ko def rek sànni ko mu jaar ci ginnaaw mu jóg dem bàyyi ko fa loola ba tey ca samedi la amoon dimanche dañu ñëwaat lamb ja jaxaat jamaykee jaaraat fa ñaari grand combat wala sax ñetti grand combat laay Pythagore ñaq jariñu laay da ko doon waaxu ñaq dal di xeex ak moom fàq ko laay def kaat ab bi coow la nekkur ñii ne laaya daan ñii ne ñaq daan waaye arbitre ba moom la mu def mooy loxo loxo ñaq jariñu la yëkkati ne ko yaa daan coow la fay zal bawal moom ñu ngi nuy xamal ba tey ca Leewtoo ne dafa zongle kii nga xam ne moo di Brise de Mer numéro 2 yëkkati ci kaw demu yoonam big potoog ñaq ak ka nga xam nii noom moom mooy wulli wulli waat mu mel ni ki démb nag wulli moom bu doon da doon woo yàlla wala mu koy ñaan daa mel ni nee na démb yàlla wuyu si na ko wulli daal nee na li am ba des de lii yàlla moom ñëw na moo tax wulli digganteem ak big pato bëri na ñu bëre bu tar wulli naa ne ndox ñëwaat ñu waat songoo pato di mboot wulli jiital ko mu def lii nga xam ne moo di kat appi combat ba yam fa loolu ci dimanche ji la woon waaye dañ fay jógee dem ca li ba Adrien xam ne Iba Mar moom yëngatu na Adrien tamit tàngoon na ba yegg lool ci jër ndax nag mbër yu mag yëpp nga foon ñoom Ibou Senghor général Malika rëg-rëg ak yeneen i mbër waaye quart finale ba moo jaral taxaw ndax nag rëg-rëg mi nga xam ne ba mu jógee États-Unis ba tey mu ngi waabale li ñu fiy teg démb nag général Malika moo ko ne arrête ne ko taxawal fii lay yem tey bii moom doo ko yóbbu ñu bëre bëre bu metti général Malika daan ko jël bu rëy ba tey ca Leewtoo point net la ñu fekk loola waaye buñ fa jógee itam ñu continuer bëre ba ca final ba kii nga xam ne nii moom moo di général Malika daan Ibou Senghor nangu lañ fa tegoon mu di un million màng 2 fa tegoon loola waaye màng 2 moom a tegoon làmb ja nag comme seen see léegi dañ ne mbapat mi mbër muy bëre da ngay fay 1000 francs balaa ngaa dugg ñu lay bind ngay bëre Manga nag ne leen waaw bu leen neexee def ko waaye man lii laay def xam ne 64 litres lañ xaalis boobu ñu war a fay maa koy fay màngaa ko génne ci jibaam fay 64 millions loolu la mànga dee def démb mu mel ni ki daal Adrien Senghor démb joxoon na ba yegg lool ci lool waaye loo xam ne dina ñëw wala mu ngi waaj nuy ñaan fekk ko muy drapeau chef de l'état bi nga xam ne mbuur lay amee le 28 jàpp le 30 juin loolu la ñu fekk ci Leewtoo point net mu mel ni ki daal léegi ay tàmbaak dëkk yañ doon wax amatu ci fenn foo xam ne yaa koy organiser jàppal daal région de Thiès lay doon département ba nga ne mooy drapeau chef de l'état waaye loo ci mën a dégg Talla Ndiaye diggante wulleeg bi pato wulli day démb nee na Talla Ndiaye yàlla ñëw na wulli nee na alhamdulilah yàlla moo tax wulli nee na ma Babacar lii neexul ma ne ko wulli neex ba dàq neex wulli daan na big pato waaye big pato police yi di courage. suivre Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di wax na moon nañ leen torop weekend bi guddoon na ñu toppaloon leen làmb yi ak kan Babacar sama mag sama xarit te mu ñëw ak yéen andi leen seen revue de l'arène Babacar nuyu naa la. Aïssa fay madame Nia Serigne Moussa Nia sama rakk sama xarit maa ngi lay nuyu di leen ziar tey ci lundi bi ah 15 avril 2019 Aïssa. waaw waaw kay di si jàngat bi ak li nga xam ne ni suñu lamb andi ñu andil nañu ko tey muy kii nga xam ne mooy bombardier fan ñëpp ñuy xaar combat am ak euh, Gris Bordeaux mu ñëw nag di ci wax ne pare na fu mu toll nii euh, fayu dong la gis te promoteur bee ci des daal waaye moom pare na. waaw nee na dina mel ni njarndem bu ñu sa yeggee <laughs> parce que di la ñëwoon studio bi Mario Bombardier ah, ñu koy nuyu di ko ziar. ah loolu nag fi mu nekk nii moom maanaam wax jamono dafaa bëri parce que comme pare na te nañu conclure na ak Pape Thialis Faye mi bëgg combat kon ça veut dire que fi nii li ñuy wax mooy combat bi yàlla na taxaw parce que tamit wax na dëgg ba day am revanche ci Gris da ko daanoon 2007 ak façon ba ko daane woon yaa ngi dégg loolu xam naa ne metti na ko ba tey te yaakaar na ne bu jële revanche am dana fayu yaa ngi dégg que waaw 12 ans après 2007 mu nekkoon lambu ju feesoon ker defe naa demb jo la fa dugg ci ay nit no waaw bëri woon na toor macha allah parce que boo xoolee image yi boo ko delluwaatee nga xool ko da ngay gis lu doy doy waar Bombardier nag nekk un grand champion def ci lamb li nga xam ne yaakaar naa mbër déggagul roi des arènes ñaar yoon ci biir carrière waaw moom nag yàlla dimbali na ko ba am na loolu Gris Bordeaux tamit vraiment nekk ki nga xam ne nekk écurie nekk tête de file ba bokk tey ci mbër yi gën a mag ci Sénégal di bëree ci niveau yu euh, euh, am yu kawe kon jàppal ne boobu revanche daal bis bu amee lamb dina dekkiwaat te xalaat naa ne du yomb bi yoon ndax Bombardier day bëgg a fayu te Gris day bëgg a delloo buum ca booy booy ba waaw loolu mooy problème waaw beneen combat boo xam ne Babacar taxaw na ki nga xam ne nii mooy Baye Mañon seen face à face démb ñoo présenté combat bi jamaïcain tëgg ko affiche boo xam ne nag Baye Mandione na bu dee day dem Gambie moom war naa a sigil drapeau Sénégal Gambie. waaw ndax démb boo xoolee bi mu ñëw si làmb ji blouson bi mu sol drapeau Sénégal la xoyantaan blouson bi mu sol drapeau Gambie la mais loolu li ñu ci wax yëpp man euh, drapeau yi sax am na importance mais nañ xam ne rek Gambie ak Sénégal benn réew la. yaa ngi dégg xëy na division si tubaab yi ñu naan Gambie fii Sénégal fii mais ñun Gambie boo ñëwee Sénégal boo jógee Gambie ñëw fii li nga bàyyi Gambie ngay fekk fii ngay jóge fii dem Gambie la nga fa li nga bàyyi fii ngay fekk Gambie mais nag loo ci mën a dégg làmb la ñoom ñaar parce que Baye Mandione comme ni ñuy wax rek nekk na mbër bi nga xam ne ni daal ah maanaam ci làmb ñàkku ci cër ndax donte des fois teglante na ay mais tout temps promoteur yi koy contacter di ko bëgg a bëree lool xoyantaan tamit mooy roi des arènes kon encore une na ci yegg ak jàmm démb présenté nañ leen stadium Iba Mar Diop jamaykee moo fa jaar suñu rakk moom tamit ñu koy nuyu di ko jaar ko encouragé di ko wax ne ku jéemul dara doo def dara daal mais vraiment bàyyi ma nag xoyantaan moom lamb du naru koo dàq ndax démb gis waaw te dina am loo xam ne Leewtoo TV dina leen ko ci ñoom ñaar ngeen seetaan ko ndax am na lu ma lu ma jot a def ak ñoom waaw ñu leen di wax rek kax leen ko ci Leewtoo TV parce que journée yi neexoon na trop ci week-end bi Babacar ñu delluwaat euh, ci journée yi njëkkee samedi di nga xam ne ni Wuli 2 ak ambulance ñoo doon bëre mais mu nekkoon fa euh, journée boo xam ne riche na tamit ci ay face to face Babacar waaw parce que kera euh, stade Iba Mar Diop samedi dafa jaxasoo parce que li ko waral mooy Assane Ndiaye xam nga Assane Ndiaye ay làmbam ni mu koy tëggee moo lay sa moo tax journée bu ñëwee rek da nga fay gis làmb pire day waa day dem ba day jéggi dayoo day alaa me boo xoolee kër euh, fëgale double moteur présentation Pape Ndoye bu Fass gis nañ ko fa gis fa yeneen i mbër yoo xam dañ leen doon présenté xam nga ñu ne déet na waaye Pape Abdou Fall indi ca Garga Mbossé ak Moussa mu nekk de plus te ñooñu nekk mbër yu mag mu taxoon journée ba yëngutul lool lool lool lool lool mais encore une fois am na incident yu fa jot am ñun ñu ngi koy ñaawlu parce que làmb soxlawul boobu image làmb li daal mooy lu rafet maanaam yëngu-yëngu mën na am mais tout le temps dañuy fexe di xeex ak suñuy bakkan ba yenn yi ñu di si bañ ci yàgg parce que day saboté image bi te ñun lamb suñu cosaan la lamb jooju neexoon na loolu wulli de itam ak ambulance gis nga nañu bëree jël ba rëyoon la man boobu jël moom wax dëgg yàlla gis naa ko gis parce que li tax ma wax la loolu mooy euh, nit biñ sumee ko ñi ëpp ci ñi nekkoon ci lamb ji dañu joxoon favori bi kii di ambulance mais làmb du biir dee xëy wasin bi ñu bëree ñoom ñaar contact bëree contact bëre contact nga gis ne lu ñuy gën dem ci biir bëre bi Wouly 2 muy gën nekk ci biir bëre bi boo xoolee problème de concentration dem na ba am nga gis ne moom moo gën ne ci biir bëre bi moo tax jël bi mu daan ambulance rëy parce que dafa def demi flexion rek dugal loxoom xar ko sànni ci ginnaaw mu jàll muy jël boo xam ne nii xaw ma top cinq xaw ma waaye daal jël ba moom rëy na di encourager ambulance di ko am na am am na benn taxaw seetlu bu may def si moom dafa mel ni bu ñëwee dakaar xaw ma dadul bàyyi yaramam xaw ma du fecceeku xaw ma nu mu demee noonu. mel ni day boo ko gisee physiquement di nga xam ne kii Aïssa entraîné na wax dëgg yàlla def na li mu war a def lépp kon lan mooy problème mu ambulance su ñëwee Dakar loolu war na ko xoolaat moom estafam wulli de nag li mu def maanaam am na ñu mu bett mais xëy na boo xamee bëri itam du la war a bett parce que li tax mooy pànk la te bëreekat la te li mu bëgg da koy wuti yaa ngi dégg ñëw na nag. bëri na bëreem daan na jël bu rëy ñu koy félicité vraiment di ko wax ne làmb moom ci kanamam parce que jàmbaar la te bëri ki dem def na exploit bu rëy rëy encore une fois ambulance ñu di ko encouragé loolu moo ànd ak lamb kii dee am kii ñàkk loolu la amateur yi sax bëgg ci làmb soxlawuñu ay nul ñu dem ci journée bi nga xam ne tam dimanche la muy jam production diggante ñàkk jariñu ak ki nga xam ne nii mooy la Pythagore ngis fa combat Babacar mais est-ce que tamit euh, combat bi daal bëri na coow. ñàkk euh, laay bi tàggoor kaas na coow li bëri na mais daal Babacar dafa mel ni laay euh, précipitation xaw na ko andil jafe-jafe. waaw boo gisee laay bi tàggoor ñàkk jëriñu ay sa laay li ko dal démb pour man précipitation la et puis mbër booy bëree ak moom war nga jàng mbër bi ban mbër la ñàkk jëriñu la plupart mbër yi koy dàq da leen di daan parce que li tax mooy du taxaw benn place dafa souplesse ba pare dafa gaaw dafay def ay déplacement yu gaaw a gaaw a gaaw yow nag boo jógee. di ko dóor yi te te jóg bi ngay jóg baaxul mën na la daan surtout boo ko yootoo te boo xoolee laay dafay xeex dafay dugg di ko dóor si ñàkk nga koy répondre ak xeex ci biir loolu nag laay bëgg na ko jàppe pour taf ko dóor ko placage bi muy jàppi ci la ko ñàkk dugal yaa ngi dégg bi mu duggee nag foofu ci li ñu gis ñun gis nañ ne attaque am na fa mais tamit euh, boo xoolee affaire fa gaaw action la boo xam ne nii bi bi laay rëppee rek ñàkk danga koy gis moom tamit mu mel ni dafa toog foofu mais l'essentiel que li am ba des mooy arbitre bi moom c'est terrain li mu désigné mooy ñàkk jariñu daan na laay Pythagore laay nag li koy wax mooy que na xoolaat bu baax a baax doxalin bi parce que tamit euh, lamb dañ koy dañ dañ koy yoon te mbër yi bokkuñu am na mbër yoo xam ne dañ leen di attaqué mais am na mbër yoo xam ne dañ leen di déglu waaw ñàkk jariñu ci mbër yi ñuy déglu da cee bokk du mbër boo xam ne da ngay ñëw rek patam patamee ko gisuma adversaire def ko ko boo xoolee général bi bu faas bi nga ko defee gis nga fa mujj ak moom seen combat bu da ko cadré koj ko ba am ko xeex mu kawate loolu tamit encore une fois staff yi am nañ ci part de responsabilité am nañ ci rôle bu baax a baax ndax laay Pythagore mbër la te champion la te pour man staff fi mu toll nii war na war na ko dépasser kon loolu nañ ci liggéeyaat bu baax a baax jàngaluñ ne seen liggéey dañuy joxe suñu xalaat ñun waaw waaw euh, laay Pythagore di champion bu mag ma koy wax champion da ngay waat rek euh, boo yoon jeexul waaxu si lu jeex laa moom moo demee noonu tey ngay am suba nga ñàkk mais li euh, am importance rek mooy mental bi ak defaruwaat bi ngay defar pour mën a dellu si waat mais Babacar combat ñëpp doon xaar dimanche diggante Wouly ak Big Pato mel ni combat boobu tam tenir na promesse parce que ñi doon xaar combat comédien mais gisuñu ma fa comédie keroog. non comédie amu fa démb. boo bëggee dégg-dégg xëy na kay ñoom ñu ñu ñu jàpp ñoom dañu doon bëre. ndax Big Pato boo ko xoolee da nga xam ne entraîné na waa police ñi di ay mbokkam ak ñi koy jàppale am nañ ko indi ko ni ñuy indee mbër Big Pato euh, kële di wulli tamit waxi noppi entraîné na ay mbokkam ëmb nañ ko indi nañ ko boo xoolee bëri nañ ko mbaa fecc nañ boo xoolee dem seen tuusa fa dàq seen seen bëree fa dàq mën naa ne parce que li tax mooy dañoo bëree parce que boo xoolee arbitre bi dafa soufflé rek wulli teg ko ci daw utali ko fas yéene xeex ak moom Big Pato répondre ko wàcc tibb tànk bi pour ñun combat foofu lay jeexee jeexewul foofa ñu génn ci biti ak su mu tibaat même tànk bi yaa ngi dégg mais li ci neex mooy. <laughs> wuli daa génn rek naani ndox. Ah, dafa génn rek jubali ca ca ca baaba moom ca cumukaay la man sam ay naan wuli daan naani mais dafa mel ni ku bëggoon a naani waaye lu ci na a def foofu moom xaw na fa récupéré waal ndax nag bëre daa metti yaa ngi moo tax bu physique bi doyul benn contact bu amee ay sa boo ngeen ndax dafa ànd ak xeex bi ñu ñëwaatee nag dernière jàppa jàppante bi boo xoolee bi patoo da ko sol yaa ngi dégg sol ko wul ko di ko déclenché mboot mais mboot ma dafa bàyyi ay booy mbot da ngay taf loxo waaj mais dafa mbot bàyyi yaa ngi dégg mbot bu wasaaroo nag yow yaay jiitu mu jiitu wëru li wër ko ndomba mu def kat appi lamb ja jeex ñuy félicité wulli encore fi di ko wax ne comme ni mu ko doon waxee rek yàlla ñëw na kon wulli wulli lii neexut wulli lii neex na yàlla ñëw na big pato tamit di ko encouragé parce que ci fair play bi et puis war a jàng si combat bi mooy que ni police nationale wala armée nationale xëy na lii boo gisee ñu di ko def xëy na dañu bëgg ñun ak ñoom civil yi xam ne que ñun ak ñoom benn la ñu parce que police bi ñi ci ne ci ay kër lañu jóge suñu ay mbokk lañu suñu ay frère lañu ñu ko ngir loo xam ne parce que bu leen neexoon mën nañ ko bañ a def mais pour faire pele pour pour que dëkk bi daal jàmm ji gën a mën a yokk di ci profité di nuyu ministre de l'intérieur ak directeur de la police ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo yoree jëm ci wàllum armée waaw euh, Babacar ñu jeexal ak li nga xam ne nii moo amoon na Adrien Senghor démb mooy euh, gala yu simple bi mangue de organiser woon euh, général Malick jël ko mais tamit mu neex fa trop parce que daan na fa ki nga xam ne nii mooy rëg-rëg coow la bëri stade ba riir ñëpp ne daal du ci daal waaw du ji dal maanaam ah mbër buñ ko daanee mooy xam nga ba faak boo àndeek mbër ñu daan ko du defet bi du neex a digéré di nga coow andi fa xeex ba dul jeex police daal la mujjee wàcc waa mais loolu nag est-ce que jar na ko bu fekkente ne général daan na ko ci yoon est-ce que jar na coow parce que général itam nag dafa am cër ci lamb di général Malick parce que dafa am lu may wax si rëg-rëg di nga koy wax sax nit ñi foog ne ku amul dégg day xalaat da nga far ak moom mais faru faruñu ak faruma ak moom encore une fois mais dafa nekk mbër bi nga xam ne li muy def da jox cër ba tax mu naqaree daan ma ne leen nag mbër mu koy déglu doo ko daan Général Malika nag gis naa ci bëreem loo xam ne ni moom day uti action uti action nag boo ko dee def lu ne mën na am xëy na moo tax dem li mu am ci rëg-rëg mu am ko kon waa rëg-rëg nañu xam ne loolu sport la bu fekkente ne ci yoon lañ leen daan ñu leen di encouragé général Malick tam du ko félicité parce que li tax mooy général Malick mën na daan ku ne si lamb boo xoolee tournoi yi ren koy ni ko ni boo xoolee li mu jël bëri na loolu allah kon te tamit xale la te am na doole te fi ne confiance mu ngi ci kawam kon yaakaar naa nag te loolu et parce que mooy tax mbapat mi gën a intense a neex kon démb moom waaw gis nga te moom moo mujj jël affaire ba général Malika kon dafa mel ni Ibou Senghor kon bu daanee rëg-rëg dama naan mérité na ko parce que loolu mooy làmb parce que itam c'est un grand champion général rëg-rëg nag ndax daan na ndax daanu na daan nañ ko mooy information waaye daan na moom du information waaw. waaw ñi suivre Leewtoo TV ci lii lañ leen di tàggoo di leen jox rendez-vous suba di jaajëfal Mame Talla ci caméra bi mu Ousmane ci montage bi di jaajëfal équipe Leewtoo TV bi yëpp di nuy képp koo xam ne yaa ngi ñuy béggee Ousmane Diop depuis depuis Italie Babacar kooku daf ñuy suivre chaque jour waa di nuyu ñëpp di nuy sama nijaay euh, tonton Matar ma lay nuy bu baax di la ñaanal di la bàyyi yàlla bàyyi la si kanamu njaboot ga gungee ñu ba ci kanam tonton bu ñaanal gudd fan ak wér di comme day di nuyu sama doom bu nekk fële ca France Cheikh Mohamed Fadel Sougou sama taaw bu góor boobu mu da koy ñaanal jàmm fa mu nekk yàlla yombal ko li mu wuti liggéey jàng gi yàlla def ci xéewal gu bëree bëri bëri di ko wax namm nañ la trop di nuy waa Italie nogay nuyu naa la namm naa la trop trop trop di nuyu Amage Mado di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp Babacar waaw sa nijaay boobu ñu ngi koy nuyu di ko ziar parce que sa nijaay suñu nijaay di ko ñaanal jàmm ah. di nuyu ñu ñuy suivre comme ni nga ko waxee Paris ñoom ñëpp ah Khady Rose Ndiaye ñoom ñëpp dañuy suivre soxna Anna Cheikh Bintou Fall képp ku nga xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV moo xam revue bi la moo xam interview bi la moo xam reportage combat yi la leen wax ne rek yéen a tax ñun ñuy góorgóor parce que ba chaque instant bu ñu ñëwoon li ñuy bëgg mooy di leen jox lu leen di bëggal te yéen yéenay suñu doole kon encore une fois saa bu ñu fiy juumee ñu leen di jégalu xam ne ni tamatul mais lu ñu fi def mu baax tamit xam ne ni suñu borom moo nu kàttanal ba mu baax kon dañuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp aysatu di balu ñëpp ak mais di wax tamit ne tey gis nga li ma sol ni si noir blanc mbay moo fi jaar di mbër xam nga tamit ndeysaan mbër yi yàlla dafa def ah affinité am suñu diggante mbër yëpp ñëpp ah yàlla xam na ko ñoom ñëpp nag la ko dale si kaw ba si suuf kon mbër yi leen di nuyu tey bu ma mbéy bi joxee dara ma sol ko rek voilà pour man ñoom mbër yëpp ko jox kon maa leen di nuyu te ñu bokku olof ne ñooy laxasoo ay goj di wax ne baat bu ñu fi wax muy njuumte jéggu ko lu ñu fi wax mu normal suñu borom mën a mais xol bu sedd yaram mu sedd ay satu yàlla na ko ñëpp am barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti yaay sar